docteur le président Abdoulaye Dièye le DG Abdoulaye Dièye muy nit ku ñàkk kañam nit koo xam ni dañu bokk ay jikko mag moom dafa am ay jikko yu ñu bokk moo tax ma naw ko donc su ma ko nuyoo nuyu naa l'ensemble des leaders politiques yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo àndoon di campagne ci élection législative yi weesu Mor Diouf mi ngi fi teew Moustapha May nekkoon suñu tête de liste départementale au nom de la coalition mais teewal fi également parti bi ma bokk le parti PUR avec euh, comme leader charismatique historique ñëpp xam ko muy le président Serigne Moustapha Sy parti bi yëpp mobilisé wuñu mobilisé wu nañu fii ci Thiès Mbaye Dembélé mën naa ko ci tudd di adjoint au maire au niveau de la commune de Thiès Nord ñoom les jeunes parti bi ñëpp a ngi fi intercoalition bi Mataaba mu ngi fi ak ñeneen ñi nga xam ni ñoom ñoom ñoo doon ànd di campagne je pense du ñu dellu si waat ci élection bi je pense ni ko président waxee sénégalais yi choisir nañu ñi choisir. ñu ngi ñaan ndam li jig leen ñu muurloo ko te mu nekk njiglaayu Sénégal wax naa keroog biñ may laaj bi ma wootee ba pare ma ni diggante deux mille vingt deux ak deux mille vingt quatre nga xam ni ñaari at ak genn wàll organiser nañ fi ñeenti élection ci réew boo xam ni tout est urgent lépp dañ ko war a defal ma ni bokk na ci réforme yi ñu war a def fii ñu jëm. mooy xool lu ñuy rationaliser organisation élection yi parce que réew moo xam ni nit ñi dañuy am problème mu lekk problème mu liggéey organise élection chaque at jaaduwu ci booleeg nombre liste yi 46 listes jaaduwul Sénégal donc dañu war a normer waat suñu démocratie defaraat ko càmbaraat donc ñun ñëpp ñu ànd. takku liggéey pour réew mi quel que soit bord politique bu ñu bokk parce que parti politique yi ay cadre la nekk mais Sénégal la bokk te mënuñu ko séddoo kon dafa jot ñun ñëpp ñu takk ànd liggéey ñi yàlla dénk teg leen fi ñu jàppale leen ba ndam am loolu la gëm loolu lay doxe ko defee delluwaat gërëm askanu Thiès yëpp rawatina waa Thiès